kon mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey ay soixante onze bi ci suuratul isra mi ngi nekk ci digg page deux cent quatre vingt neuf bi aya soixante onze yowma nad'u kulla unasim bi imamihim ci dégg page deux cent quatre-vingt-neuf ba suratul isra alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga xam ne mi ngi koy baawoon ci ñun bokk na ci mu wërsëgal ñu ñi ngi dund fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi gën ci at bi yépp la ca ëppoon jàll na waaye li ci des moo ëpp solo loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax te it xam ne tey mooy juróom-benneelu fan te la nga xam ne nii mooy weer wu ñu tuddee zulhijja ci atum 1440 di dëppoog le 7 août bi 2019 ñu dajewaat ci sunu benn daje ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaax xeet bi ci ngëneel yi ci nekk te it dégg ngeen ci xutba imaam yi rasul sallallahu alayhi wa sallam di wax ni amul benn jëf bu nit mën a jëfal yàlla ci yeneen fan nam ko bëggee lañ ko jëfal ci fukki fan yi loolu kon muy wone ne ci jëf yiñ gën a yaakaar ca la bokk ñu ngi ñaan yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko comme ni ngeen xamee it jamono ji sunu mbokk jullit yi jóge nañ penku jant ak sowwu jant jëm ca daje bu mag boobe ca mooy aj makka ñu ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla yombalal leen ca nangul leen ca tuyaa bajee it yàlla subhanahu wa taala boole ko ak ñun ñépp gannaaw yoolu it ñu ngi ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg ñi teewewul darsu bi di leen jottali li fi nar a jóge incha allah sunu mbokk xam sa diine ya sunu mbokk xam islam point com ba ak suñu télévision bi di islam tv ña nga xam ne ñoo koy taxawee yal na yàlla jàppale leen ca def leen ca ña nga xam ne dañuy jottali kàddug yàlla waaw xam naa kon teyit sunu mbokku Cheikh Ousmane yaram bi taxu ko neex waaye incha allah mu jël la jàppandi rek incha allah ñu jël bind bu njëkk bi waaw
الآخرة إذا ما أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني برمني يوم ندعو كل أناس بإمامهم بسبني و بيب أي نت كسن جيت ل فمن أوتي كتابه بيمينه koo xam ne jot na ab téeréem ca ndey jooram fa ulaika yaqra'uuna kitaabahum ñoom day daan jàng seen téere ya wala yuzlamuuna fatila ca kenn du leen tooñ fatil xooxu tàndarma boo ko xollee kër ba nekk ca xoox ba am na buum gu sew gu cay lale loolu la arab di wax fatil ومن كان في هذه أعمى كو خمنا دا نيك تي دوندك ادنا جي سلم خدي فهو في الآخرة أعمى الآخر دي سلم خاي دي غمب وأضل سبيلا تكلي جنا سانكو تي أو يون وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوهينا إليك ñoom day xaw nañu sax di la fitnaal ca la nga xam ne wax yu nañ ko jëme ci yow li taftari alayna gayra ngir nga dóoral ci ñun leneen lu dul loolu wa idan la taxaduuka xalila ca kon day ñoom dañ la jàpp nga nekk xarit bu leen jega lool walawla an sabbatnaaka bu dul woon ak ñun yàlla ñoo la saxal dëgëral la laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila yow day xawoon nga sax di jàng jëm ci ñoom lenn ci lu tuuti idan la azaqnaaka bi afal xaya waaye loolu de boo ko defoon dañ la jox ak ful ci dundug àdduna gi ay mbugal mu ñu ful wa di fal mamaat ak lu ñu ful ca dee ca la nga xam ne mooy faatu ga ngay faatu ca mooy gannaaw ba nga faatoo dañ la mbugal ñaari mbugal summa la tajidu laka alayna nasira gannaaw ba doo am ñeel la ci ñun kenn koo xam ne dañu la dimbali mbokk julit doomu aadama yi dafa am lu leen di teqale ñu nekk ñaari mbooloo mbooloo moo xam ni gëm nañu ne àdduna ji dañ fi ñëw mu nekk ay tool ñeel leen ñu fi jaar rek di jàll waaye kërug saxuwaay ga moom mooy allaxira su ko defee ñooñu ñu waajal kër googe nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala soo delloo ci téereb yàlla bi lu ëpp ñetti téeméeri yoon ñu ngi ñuy fàttali bis boobe ci loolu la ñuy fàttali mu ne bis mi ngi ñëw mbooloo mu nekk ñu wooloon ca ka leen jiite woon woo la nga xam ne mooy qawmu nuux woo qawmu huud saalix ku nekk ñu woo ko yàlla defoon mu war laa jiite léegi képp koo xamee ni nii jëloon nga njiit loolu yàlla tànnal la def ko muy sa njiit ku mel noonu day daañ la jox sab téere ci sa ndeyjoor bu ko defee nga wëlbati ko jàng sab téere ca bu boobaa kenn du la tooñ ci dara ca la shakka ni moo di ne yow da ngay bokk ci ñooñu aljanna comme naka suñu borom waxee ci saar yu bari fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa huwa fi ishatin radiya mi ngi noonu képp koo xamee ni nii jot nga sa téere sa lay joor àjjana ngay nar a jëm muy sa wàccuwaay su ko defee say résultat da nga koy gis comme niñ ko jànge woon ci ay ci gannaaw iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ñooñu buñ jàngee seen téere kenn du leen tooñ ci dara te sa borom yàlla du tooñ kenn xanaa kay lim lay defal mooy fulal la say tuyaaba tuyaaba boo def mu ful ko fukki yoon juróom-ñaar fukki yoon juróom-ñaar téeméeri yoon wallahu yudaa'ifu liman yasha amma say bakkaar kenn du la ko fulal say tuyaaba kenn du la ko sankal nii it da nga laaj waaw ñu jot seen téere ci càmmoñ nag loolu it boo delloo ci téereb yàlla bi suñu borom mu ne amma man utiya kitaabahu waraa zahri fa sawfa yad'u subura mi ngi noonu wa yasla saira koo xam ne sa téere yow càmmoñ lañ la ko joxe da nga woo alkaange ci sawara muy nar a nekk sa wàccuwaay loolu nag mbokk julit lan moo lay may nga jotee sa téere ci ndeyjoor mooy bi ngay dund da nga jaaroon yoonu ndeyjoor suñu borom yàlla doomu aadama yi nee na da leen tëralal najidayni mi ngi noonu hëdaynaahu najidayni imma shakiran wa imma kafura ñaari yoon mi ngi nii lii mooy yoonu yàlla bi jëme ci ngërëmam jëme àjjane directement ña ca jaar ñoo jaar ci yoonu ndeyjoor ba ëllëg ñooy jot seen tere ndeyjoor ëllëg ñooy tabbe aljanna yal na yàlla boole ñu ca amma yoonu càmmoñ ba mooy yoonu sheytaan nga xam ni mooy yoonu bànneexe yoonu réer ga loolee kon la borom bi di wax loolu borom bi nag moo tax mu ne koo xam ne adduna bi nga fi nekkee yoon wu baax woowee di yoonu njub yow gisoo ko woon yaa ngi gisoon rek say bànneex daa di gumba gumbalu àllaaxirit noonu ngay gumba ca mbokk suñu borom daa woo doomu aadama yi doonte neen innaha la taama al absar walakin taama al qulub allati fi sudur lay gumba du bët yi ñuy gis am na ay silmaxa ay imam ay docteur di jàngale diine waaye xol mooy gumba waliyas billah suñu borom mi ngi indi ay kawtéefam ci doomu aadama doomu aadama xanaa gisul naka laa ko binde mi ngi noonu xanaa doomu aadama yi xooluñu ni ma binde giléem yi ni ma tàllalee asamaan yi tàllalee ko suuf samp montagne yi xanaa gisuñu ci ngelaw yi inna fi xalqi samawati wal ard mi ngi noonu lu nekk suñu borom won nañu ko ci ay kenn xamul ñaata kawtiif yoo xam ne lu nekk doomu aadama bu ci xalaatee war a xam yàlla kenn la ca lum dige mën na ko wa fi kullin lahu aaya tadullu ala annahu alwahid ak lum mën a doon rek boo ci xalaatee gis sa wéetaay boroom ak kattanu boroom waaye ñi nga xam ne gumba niñ ci wàllu googe topp bànneexu àdduna ya yowmal qiyaama bu ñu dekkee suñu borom nee na dañuy gumba danañu wax ca beneen aaya ca tooha rabbi lima xashartani ama wa qad kuntu basira e yàlla tey maa ngi dékki gumba te man ba muy dund dama doon gis borom bi mu ne kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al yowma tunsa li waroon loolu mooy dama laa wàcce loolu samay aaya aaya yooyee nga sànni ko ca àll ba nasitaha ay taraktaha toppatoo woo ko jéema koo xam loolu moo tax lii it mbokk kon dalay won ngalawaay bokkal ci ñiy gis mooy njaccaar yi ana ñan ñooy gis mooy ñi gëm aayey borom bi comprendre aayey borom bi ca jëfe aayey borom bi alquran da nga koy xam da nga koy dégg jëfe ko mu dog laa jëriñ suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ne yow yeneen ci yàlla bi day gaa yi xaw nañ laa fitnaal ba diine jii ma la jox nga dugal ci lu bokkul ak la nga xamee ni ni moom la la sant soo ko defoon ñu jàppale ab xarit te loolu itamit mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax suñu boroom jalla wa ala bi mu yónnee ab yeneen tam gaa yi ñëw nañu proposé ko li ñuy tudde tey mooy dialogue islamo bokkaale li xew suñ jamono mooy dialogue islamo chrétien ñoom indi woon nañ dialogue islaam bokkaale ay muhammad ñoo bokk dëkk bi suñ doom ju baax nga léegi ah, yow kaay nga wax yàlla bi ngay jaamu lu mu bëgg ñu def ko ca nga bàyyi suñu yàlla yi yi nga noonu suñu borom wàcce qul ya ayuhal kafirun bokk na yu ñu ko doon proposé it moo di ne ñun kilifa yi fokk nga wutal ñu jataay booy toog ak ñun waaye ñun mënuñoo nekk di toog ak baadoole yi la wër suñu borom mu ne déedéet wala tatrudi lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ila axiri camoo dina ne mbokkoo yéeféer xamal ne lay jubluwaayam mooy bëgg nga bàyyi sa diine waaye loolu buñ ci réussir it daañ bëgg lenn ci seen diina nga toléré leen ko ca loolu ak a jafe mucc ndax moo tax suñu borom ne yonente yàlla bi lawla an sabbatnaaka su dul woon ak ñun ñoo la dëgëral saxal la day doon nga jeng jëm ci ñoom maslaha bi nga jàpp ba defal leen lenn ci luñ bëgg loolu it nga la waay yow julit bàyyi ci xel bu baax société bi nga juddoo yaroo ca dañuy am influence bi ñuy am ci yow loole na doon ci wàllu nguur gala ci wàllu mbokk gala ci wàllu aada yala soo moytuwul rek dana am lenn ci loo xamee ni nii ci sa wàllu diine la daañu fexe ba nga bokk comme tey boo gisee lu bari sunu mbokk jigéen ñi ni ñu leen di xeexe ca la nga xamee ni nii moom mooy seen wàllu muuraay yi ak yeneen yu demee noonu borom bi subhanahu wa taala nag ne maa la dëgëral nekkoon nga jéng jëm ci ñoom comme yonent bi lay waxal moo ana keneen ku dul yonent bi loolu it moo tax ba mbokk julit fooy toll del ñaan yàlla subhanahu wa taala dëgëral sa ngëm dëgëral sa pas-pas saxal la ci yoonu njub te loolu jàngal nañu ko te mooy rabbana la tuzi qulubana ba'da iz hadaytana yàlla yàlla boo jàngal suñu xol gannaaw ba ñu jubale yéeféer nit ak bidaa nit ak bokkaale kat pression bu ne dana ko def ci yow ngir nga bàyyi ci lenn lu yàlla faratal ci yow pression bu ne dana ko def ci yow ngir nga ñëw ànd ak moom ci shirkam ànd ak moom ci bidaayam créé bu dul ne da nga boole ak dëgër ak ñaan yàlla ba yàlla saxal la fokk da nga am lenn loo xam ne toléré nga ko ànd ak ñoom ca loolu suñu borom yàlla nag mën a yeneen ci yàlla bi loolu day boo ko defee dinaa la jox ñaari mbugal ci àdduna ak ñaari mbugal ci àllaaxira te doo gis ku la dimbali te it mbokk suñu borom loolu la dig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram te mooy yéen soxna yonent bi man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli nu'tiha ajraha marratayn ko def ci lu baax dañ ko mbugal ñe dañ ko jox yoolam ñaari yoon waaye man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudaafu laha al'azabu di'fayn yéen soxna yonent yi ku ci def aw ñaawteef double punition double mbugal lay am loolu it mbokk suñu borom yàlla aar na ab yenentam maasum la yenent yàlla du jeng mukk jëm ci ay yéeféer du jeng mukk jëm ci niti shirk du jeng mukk jëm ci niti bidaa waaye lii mi ngi koy waxal ngir muytuloo xeet bi ngal la way del bàyyi xel ba dara bu mu tax ba jëflante ba ngay jëflanteeg waa àdduna tax nga bàyyi lenn ci say farata wala nga fekk leen lenn ca la nga xamee ne ñoom dañ koo sos ci diine ji yàlla mi saxaloon ab yeneen tam yàlla na yàlla saxal ñu
وقرآن الفجر محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
barakallahu fikum suñu borom mu ni wa in kaadu la yastafizunaka min al ard ñoom day xawoon nañu sax di la xiirtal eh, ci suuf si li yuxrijuuka minha ngir ñu génne la ci suuf nekkoon nañ di la xatal di la xiirtal ngir ñu génne la ci suuf si wa idan la yalbasuuna xilaafaka illa qalila waaye buñ ko defoon day duñu sax sa gannaaw sa kootaay lu dul lu néew sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina ndax lii mooy aaday ña nga xam ne yónni woon naa leen ci suñu yenent wala tajidu li sunnatina taxwiila ca doo fekk mukk ci suñuy sunna mooy suñuy aada la nga xam ne mooy ak wëlbatiku ak coppite aqimi salaata li duluki shamsi ila gasaqi leyl taxawalal julli ca jeng ga jant ba di jeng ca zawal ba baa ca lënd mi guddi ga wa quraan al fajr ca nga taxawal alquran dañuy jàng ca fajar inna quraan alfajri kaana mashhuda alquraani fajar day nekk na loo xam ne lu ñuy seedale lu ñuy seede la wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan lak bu guddi jotee jógal def tahajjut tahajjut mooy jóg ba ngay jóg gannaaw ba nga nelawee ba pare fa tahajjat bihi na nga doon kon aji taxaw di naafila mu nekk naafilatan lak ak ndollant goo xam ne ñeel na la yoo yonent bi asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda mën na am sa borom dekkil la ca place ba nga xam ne mooy ba ñu gërëm ba wa qul rabbi adxilni mudxala sidq neel ay yàlla dugal ma dugg dugguwaayu dëggu bu dëggu wa axrijni muxraja sidq ca génn ma génnuwaayu dëggu waj'al li min ladunka sultaanan nasira ca nga def ñeel ma ci lu bawoo ci yow sultaan li di kattan nasira ma doon koo xam ne nii ku ñu dimbali lay doon mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ni yow yéefar yi day xaw nañu la xiirtal bund xatal la xatal la ngir génne la ci suuf mbokk aaya yi bi muy wàcc booba yonent bi alayhi salaam mi ngi makka suñu borom yàlla ne ko yéefar yi day suñu sañoon nga génn dëkk bi waaye suñu borom mu ne ko gis nga bis buñ la génnee duñu sax sa gannaaw lu dul lu néew ndax lii mooy aada ba ma jaar ak yonent yi fi jiitu woon ca samay aada du soppeeku lii avertissement la boo xam ne suñu borom joxoon na ko waa makka waaye teewul waa makka daje nañu benn bis ca seen congrès bañ defoon ca daaru nadwa mboolem kilifa yi quraish yépp teew ñu ne nekk muhammad mii ay mbiram mi ngi bëgg a ëpp loxo il faut ñu xool ban pexe lañ ciy def moo am ñu jóg proposé ni nañ ko génne dëkk bi comme ni suñu borom wax fii booba yàlla dogaloon na sheytaan yàlla na yàlla musal ñu ci moom sol na mbubbum nit ñëw fekk réunion ba mu ne mais kii bu ngeen ko génnee ak làmmiñam bu neex bi dana fexe convaincre ñeneen ñëw xeex leen moo am ñu proposé ne kon nañ ko tëj ci benn néeg tëj ko ci benn kër interdire ko mu génn mu ne yéen a gën a xam ne loolu bu ngeen ko defee waa bani hashim duñ leen ci bàyyi ak mbokkam ñi nga xam ne dañ koo gëm cala saay saay ba abu jahal daal di jóg ne man daal li ma gis mooy nañ jël mboolem famille makka yi ñu jël ci benn ponkal ñu daal di koy dem fekk ko dóorandoo ko jaasi mu dee benn yoon waa bani hashim mënuñu xeex ak waa makka yépp bu ñu laajee diye ñu cotiser jox leen seytaane na ko yow sa wax ji mooy wax ju jub ala kulli xaal bañ ko décidé la suñu borom génne ab yonentam jox ko ordre mu dem waaye ba yonent bi génnee dem teguñu ca ñaari at mboolem ñooñu daje woon ca congrès boobee suñu borom yàlla ootal leen ca badr daa di leen fay rey mboole seen ñu nekkoon juróom ñaar fukki ponkal yu fa daaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw ñetti fan mu buub leen sànni leen ca teenu badar ba gannaaw ba taxaw di leen woo ya omar ibnu hisham ya abu jahal omar ibnu xalaf mi ngi noonu ya rabia ya utba ya kaza ndax li may li leen yàlla digoon gis ngeen ko man day la ma yàlla digoon gis naa ko omar ibnu xataab ñoo jàpp ci mbagg bi ne ko yi mu yàlla yónni ñii dañoo déeba midd mu ne ko omar wallahi gënoo leen a dégg wax ji may wax lu dul ne dañ maa mun te tont kon la yàlla subhanahu wa taala jige woon ne ko daañu fexe génne la waaye buñ la génne it du ñu sax sa gannaaw lu dul lu néew ndax lii mooy aada yàlla ci kaw suuf loolu it mbokk julit na nga xam ne yow yenent yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon dàq nañu leen dëkk yiñ juddoo yaroo fa ngir seen diine loolu it yow ndawal julit deel ñaan yàlla afiya waaye yàlla mën naa dogal diine ja ngay dund tax ñu dàq la sa service diine ba ngay dund tax ñu génne la sa kër diine ba ngay dund tax ñu génne la tëj la ca kaso ya bu dee jigéena diine ba ngay dund mën na tax ñu fase la ca sëy ba waaye loolu lépp nga la waay sant ci yàlla ca xam ne yàlla nga lay jaarale fam jaarale woon ay yeneen tam ca boo ko muñee muñ gu rafet lu mu yàgg-yàgg natt boobee dana wëlbati ko nekk xéewal ñeel la adduna nekk xéewal ñeel la alaxira loolu kon moo aju ci wàllu googee suñu borom nag ñëw ca la nga xam ne mooy pilier diine ji ca muy julli ngalla way diine bu amul julli yàlla musu koo amal ci kaw suuf ca du am ba ila yawmi diin julli googee suñu borom moo ko farataal ci ñun daldi koy def muy juróomi waxtu mu wutal ko it ay temps yuñ ko war a julli inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta tey jii ki nga xam ne dafa jógoon tey nekkat man xaaral léegi ma daldi julli gée julli fajar ci sunu waxtu wi amul kenn ku muy dajeel ku xam tuuti ci diine lu dul mu ne ko loolu nekkul lu baax abadan te mooy fajar kenn du ko julli léegi kon suñu borom moo wutal julli yi ay waxtu waxtu yooyee mu commencé ko ca tisbaar mu ne taxawalal julli heure bu jant bi demee ba génn digg asamaan bi muy zawal su boobaa taxawalal julli julli googee taxawal ko ba baa ci lëndëmi guddi ga ca loolu lan lay yóbbu mooy day yóbbu tisbaar ak takkusaan nga xam ne fu jant bi jénge rek seeni waxtu dugg na yow mi nekkoon ci tukki bu la neexee boole ko julli ko benn yoon yow mi nekkoon ci feebar naka noonu yow mi nekk ci ngant xat-xat boo xam ne wóor na la ne doo mën a julli takkusaan te waxtu wa islam may na la nga daal di julli tisbaar ak takkusaan ci njëlbeen waxtu wa comme nam la maye nga julli ko te fin waxtu wa mooy bu dee xat-xat am na ci njëlbeen la man ngaa boole tisbaar ak takkusaan julli ca fin waxtu wa gannaaw ba guddi ga fu jant ba sowi guddi ga dugg na ba baa ñuy dem ca lëndëm ga suñu borom yoonal na ci diggante boobu gée ak timis ñu mën koo boole ca njëlbeenu waxtu wa wala ca fee waxtu wa borom bi nag tudd la nga xam ne mooy alquran dañuy jàng te fajar ca loolu mooy jullit fajar nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la daan ëpp lum daan jàng ci alquran ndax suñu borom mu ne alquran ja ngay jàng ca fajar day doon na loo xam ne lu ñuy seedale loolu moo tax ba soo demoon tey ci ulamaawu mazhab malik ñoom dañ naan salaatul wusta mooy julli gi gën ci julli yi mooy julli fajar donte ne boo dellu woon lu bari ci wala maanu xadis ñoom takkusaan la ñuy wax waaye it ñaari julli yooyu mbokk nga la waay ñu xam ne yu jafe la looloo tax islam digge ci lu rëy julik fajar ak julik takkusaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla ngi leen booleeg ay malaaka yoo xam ne dañuy relevanté ci tisba ci takkusaan ñaar ñooy ñëw fas yéene fanaan ak yow ba fajar yeneen ñaar ñëw ñu daje fa muy ñeenti malaaka yooyu daje ci waxtu julli fajar gannaaw ba ñu fanaanoon yéeg ñi ñëw ci fajar yendu ba takkusaanee yeneen ñaar ñëw ñu daje ci ñaari julli yooyee ñaari julli yooyu la yonent bi alayhi salaam doon wax ne man salla bardayni daxala al janna koo xam ne fexe na ba julli takkusaan ak julli fajar du ko faat àjjana la jëm daana waxit ne da ngeen gis yowmal qiyaama jàkkaarloog seen boroom comme ni ngeen di jàkkaarloog weer wi bu nekkee ci laylatul badr 13 14 15 nee na bu ngeen mënee ba du ngeen faat julli takkusaan ak julli fajar ngalawaay def leen ko loolu it ngalawaay bari na ci ay nit ñu seytaane am ci ñoom benn cër cër ba mooy lan moo di ne dañuy julli na am waaye fajar jarawlu leen dagg seeni nelaw su dee war nañu liggéey daal tey la jóg muy tombeeg fajar daan julli fajar te waxtu wa waaye dimanche congé heure repos da ngay nelaw nelaw nelaw ba say nelaw féex nga daal di jóg doog a julli mbokk loolu njuumte bu rëy la looloo tax ñu yoonal ci julli fajar noddkat bi jëkk a nodd premier nodd ngir yee ñi doon nelaw ñaareelu nodd ba it ña nga xam ne ñoo des ca lal ba jóguguñu sunna daal di ci dolli ne asalaatu xayrun min a nawm mi ngi noonu ba nga déggee nodd gu jëkk jógoo ba nodd ñaareel ba mu ne la héey asalaatu xayrun min a nawm jóg leen julli ji loolu moo gën nelaw loolu kon mbokk mi ngi noonu di quran al fajr nga xam ne sahaaba yi nee nañu yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam la ëppoon lam ca daan jàng daana jàng juróom benn fukki aaya ba baa téeméeri aaya léeg-léeg loolee da ngay gis doonu lu nit yi tey xam borom bi subhanahu wa taala bàyyi loolu bañ demee ba nga xamee ni nii wóor na ko ne yonentam bii de daañ ko mës a génne ca la ko wax mu ñaan ko ci alquran ñaan gu am solo ca mooy yàlla yàlla nag ma duggal dugguwaay bu dëggu ca loo may génne nga génne ma ca génnuwaay bu dëggu la ëpp la ko borom xam-xam yi jëkke firi mooy dugguwaayu dëggu moom mooy dugal gam ko dugal ca madina ca la ko yàlla jël boole ko ak waa ansaar ñooñi teeru ko naka waa makka bañe woon ñoom ñu bëggee ko nu raw noonu yonent bi gënal leen seeni wayjur ak seeni doom gënal leen seeni bakkan ñu yaatal ko yaatal ak njabootam suñu borom may ko fa cité état boo xam ne fa la am base ba la tasaaree l'islam ba l'islam tey dem ci goxi adduna bi yépp mu ne ko it boo may génne génne ma ci génne dëggu ca moo dina ne génn goo xam ne yàlla rek a tax ca la shakka ni daana wax ne képp koo xam ne yaa ngi jëm ci mbir sa yéene rek la ci yàllay fay loolee bam ñu ci jox misaal hijra la jël misaal man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuli fa hijratuhu ila allahi wa rasuli koo xam ne bi ngay génn di def gàddaay jubluwoo ci dudul ngërëmal yàlla ak dooleelu yeneen ci yàlla bi kooku day dana am pay bu màgg ba koy xaar ci loolu waaye nag man kaanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imraatin yantuhuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayha koo xam ne bi ngay génne intérêt àdduna dong moo la génne nee na intérêt àdduna dong nga ci am loolu it mbokk di base boo xam ni ngallaway julit gànnaa yoo ko ci lépp ñaanal yàlla ba lépp luy dugg fekk yàlla tax nga ciy dugg ñaanal yàlla ba lépp luy génn fekk yàlla yàlla rek a tax nga ciy génn lépp luy jël lépp luy jëflante yàlla rek a tax képp koy won gannaaw képp koy bàyyi yàlla rek moo tax te loolu moo lay may caf ka ngëm yàlla jullit muy bëgg ci yàlla tax di bañ ci yàlla tax di jël ci yàlla tax di bàyyi ci yàlla tax ku muy farandool yàlla tax ku muy noonul yàlla tax mu doxala sidq muxraja sidq loole mooy la nga xam ne moom la yenent yàlla bi yàlla ñaan ko yàlla wax ko mu ñaan ko ko mu ne ko it nag ma defal sultaan sultaan mooy kattan dana doon ci xujja ci ay lay mi ngi noonu dana doon ci kattanu doole ca ñaar yépp yàlla defal na ko ko yàlla defal na ko lay bu leer te mooy alquran bi nga xamee ni nii mooy lay bi gën a màgg ci lay yàlla mujj na ko may kàttanit ba nga ko génnee makka mu dem madina yàlla may na ko kattan teguñu ca juróom ñetti at ca la ñëw am kattan daa di daaneel mboolem pexe yoo xam ne nekkoon na ci waa makka ndimbal googu it da ngay gis ni suñu borom yàlla mi ngi koy yokk di ko yokk ñu ngi ñaan yàlla gën koo yokk ba ila yumi diin kon mi ngi noonu cheikh ousmane وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أرضانا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا يجدك به علينا وكيلا jazakallahu xayra suñu borom kon mu ne wa qul jaa alxaq neel dikk na la nga xam ne mooy dëgg wa zahaqa albaatil sànku na la nga xam ne mooy neen inna albaatila kaana zahuqa neen day doon na loo xam ne luy sànku la wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa ñun day dañ wàcc ci alquran ji loo xam ne ak saafara lay doon wa rahmatun lil muminin doonit yërmaande ñeel ña nga xam ne dañoo gëm wala yazidu zalimina illa xasaara waaye du dolli toñkat ya lu dul pertaange kese wa ida anamna ala al insaan ñun yàlla nag heure bu ñu xéewalee ci doomu aadama arada wa naa bi janibi mu daal di dummooyu daal di beru ci ak wetam wa ida massahu charru kaana yausa waaye bu ko lor dalee rek mu doon koo xam ne ku ñikki la ay ko amatul benn yaakaar qul kullun yacmalu ala shakilati neel ku nekk day ma ngay jëfe ca melokaanam fa rabbukum aclamu bi man huwa ahda sabila sa borom yàlla nag moo gën a xam kan mooy ki gën a jub ci yoon wa yasaluunaka an ruux ñi ngi lay laaj ba tey lu jëm ci ruux quli ruux min amri rabbi neel ruux de moom ci sama mbiri borom la la la la bokk wa ma utitum min al ilmi illa qalila ndax yéen day jotu leen ci xam-xam lu dul lu néew wala in shina la nazhabanna billadi awhayna ilayk ñun day bu ñu neexoon ñu demee ca la nga xamee ni nii wax yu nañ ko ci yow yóbbu ko summa la tajidu laka bihi alayna wakila gannaaw ba doo am ci ñun kenn koo xam ne nii mooy lay féetewoo di la wakil ba mën la koo delloo mi ngi noonu jalla waala mbokk kon suñu boroom ñaan wax na ab yonentam mu ñaan ko mu may ko dugg waayu dëggu génn waayu dëgg na am noonu la ko génne woon màkk ci dëgg dugal ko madina ci dëgg waaye bañ ca defee juróom ñetti atit la ko dellu si waat dugalaat ko biir makka mu doxala sidq ci dëgguwaay bu dëggu mu ànd ak ay saxaabaam ñëw waa makka yépp tiit wàcce seeni arme ñëw toroxlu ci kanamam mu ñëw daa di leen di dajale ñoom ñépp biñ ñëwee mu daa di sant sahaaba yi ñu rajexe xërëm yi nekkoon ci kaaba gi yépp nekkoon plus de trois cent soixante xërëm daaneel seen xërëm bu mag ba muy hubal loolu ba mu koy daaneel sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon jàng aaye bi nga xam ne dañ ni bi muy wàcc ak bi nuñ koy waxee ci affaire bi di am lum néew néew jege na ay fukki at suñu borom yàlla subhanahu wa taala doog koo dëggal yonent bi di ànd ak sahaaba yi di mabb xërëm yi di jàng jaa al xaq wa zahaqa al batil inna al batila kaana zahuqa dëgg ñëw na neen sanku na te it mbokk dëgg heure bu feeñee mboorem yi borom xel dañ koy daal di xàmmee te it dafay doon loo xam ne nii luy sanku la te xam leen ne mbokk lu dul dëgg shirka la bidaa la lu mu mën a doon ak lu mu xumb xumb ak lu mu yaatu yaatu ci neen rek lay mucc dëgg rek mooy li sax dëgg rek mooy la nga xam ne mooy li sax rawatina heure bu ñu demee allaxira koo xam ne da nga faa yóbbu woon shirk ak lu mu taaru taaru ay bidaa ak lu mu taaru taaru suñu borom mu ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura képp koo xam ne indi nga allaxira lu dul dëgg ak lu mu bari bari ak lu mu taaru taaru suñu borom nee na poussière laa koy def sànni ko loolu mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala gis nañu ne bi mu defalee rasul sallallahu alayhi wasallam xéewal gu màgg googu ca la wax nag alxuraan ji ñu tiim mu ne alxuraan de ñun ñoo ci wàcce loo xam ne shifa la shifa mooy lay faj la nga xam ne moom lay jëkk a faj mooy amraat ak shubuhaat mooy lënt yi nekk ci biir xol ci bokkaale ya ak la nga xamee ne nii moo ci aju gannaaw ba la ñu tuddee ashahawaat muy bànneex ya waa ji nga xam ne mi ngi jàng alquran ca digg alquran wallahi yàlla dana ko saafara dana mucc ci bokkaale yow mi nga xam ni jàng nga suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax ne alaxira day mooy yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yowma idin lillah alaxira benn bakkan du mënal moroomu bakkanam dara mbir yépp ci loxo yàlla la nekk ndax nit dana jàng aaya bi comprendre ko gëm ko ba pare naan suñ sekk mi ma yaakaar wala suñ saar mi ma yaakaar abadan suñu borom yàlla ñi nga xam ne dañu naan yàlla dafa am doom borom bi mu ne wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada yayul ci muy am doom waa asamaan ak waa suuf yëpp moo leen bind lu mu bëgg dana kun fa yakun kon amul kenn koy jàngal xuraan di dugg ci musiba boobee amul kenn koo xam ne dana am dana jàngal quran mbokk di jël aqu yàlla di ko jaawaleeg aqu keneen waaye it bànneex yi yow mi nga xam ne yaa jàngal quran suñu borom subhanahu wa taala ne allazina yaakuluuna riba la yaqumuuna illa kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almas yow mi lekk riba booy dékki yowmal qiyaama da ngay mel ne ku jinne fadd ngay cadd cadd inna lazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim noora ña nga xam ne dañuy lekk alali jirim ñi ngi mel ne ñu jël xalu safara di ko lekk wax la nga xam ne moo aju ci bakkaar yu bon yépp loole it kon jàng alquran day saafara la nga xam ne moo nekk ci biir xol ya allahuma lu dul it yàlla def na ci xéewal day saafara jëmmi yi alquran day saafara jëmmi yi te loolu it expérience la boo xam ne nii nga la way xam leen ni bokk na li nga xam ne mooy al muawisat na doon ñeenti xul yi قل يا أيها الكافرون قل قل هو الله أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس yii mbokk day aar doomu aadama ba lor du dal ci kawam day saafara doomu aadama bi nga xam ne da koy jàng di ray ci yaramam da ngay gis rasul sallallahu alayhi wasallam ba muy dund sahaaba yi demoon nañu ci benn giir arab ñaan leen ñu fat leen ñu bañ yàlla yebal lu matt borom dëkk bi mu dem bay waaja dee ñu ñëw ci saxaaba yi ndax amul ko mën a mocc ci yéen abi saïd al xudri na leen ah kay man damay mocc ñu ne ko waay kaay màccul ñu suñu buur bi mu ne waa da ngeen ñuy jox day gétt ci ak xar ñu ne ko d'accord nee na man ma ñëw di jàng fatiha bu ma jàngee fatiha rek daal di ëf tafli ci fatiha ëf tafli ci ay yoon la ko jàng rek buur bi ne xafet jóg mel ni ku ñu tënkoon dara dalal ko daa ji ne jox leen leen jur gi ñuy wax ñu jox leen jur gi abi sayid nag ne duñ ci rey benn lu dul ñu dellu ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax lii man sama xalaatu bopp rek laa ko defee biñ ñëwee yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne waaw ku la xamal ne faatee ruqiya la ay faatee day mocc séddoo leen ci jox ma ci sama wàll kon it mbokk mi ngi noonu alquran jooju day faj looloo tax lenn ci borom xam-xam yi ci seen expérience donte na ñëpp d'accorduñ ca waaye am na ca ay ulama wa ahlu sunna man nga caa tuddi imaamu ahmad man nga caa tuddi ibnu taymiya ibnu alqayim aljawzi ñooñu nga xam ne ci mashayikh ahlu sunna yi lañ bokk nangu nañu nit ki jël alquran jàng ko ci ndox doomu aadama bi naan ko wala doomu aadama bi sangoo ko mi ngi noonu amma bu dee jàng raay ci yaram moom loolee moom da ngay gis ne ah loolu lu mën a nekk la lu sunna saxal la borom boobu nag nee na alquran jii de dana saafara waaye du dolli tooñkat yi te mooy bokkaalekat yi yéeféer yi lu dul pertaange pertaange na am ndax mbokk yéeféer rek aju ko bon la waaye dana gën a yées nag ñu jàngal ko alquran mu dégg alquran ba pare won gannaaw alquran kooku moom loolu dolli na ko la nga xam ne mooy alkaange suñu borom wax li ëpp ci jaamam yi niñ mel nee ni li ëpp ci jaam yi heure bu leen yàlla wërsëgalee ba ñu yëg ne ñoom ils sont à l'aise géejal nañu dañuy daal di dummoo yi seen borom daal di féetewoo seen bopp am li ñuy tudd autosuffisance jàpp ne amul kenn ku ñuy yaakaar li ñu am ñoo ko may seen bopp moom la borom bi di wax naan innal insana la yatgha an ra'aw yastaghna li ëpp ci nit ñi buñ demee ba jàpp ni ñoom kat dara manqué wu leen dañuy daal di bew borom bi subhanahu wa taala nag ne heure boo xamee ni ni lor dal na ko la nga xamee ni ni mooy yaakaaram yépp a dagg jàpp ne dootu baax ba faw lii mbokk mooy melokaanu yéeféer yi yàlla ŋàññ ana julit nag julit moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam na nga ko melele nee na inna amrahu kullahu lahu xayr jullit léppam yiw la bu ko yàlla xéewalee moom day sant yàlla gën a xéewali gën koo jegeel yàlla yàlla dolli ko ay xéewalam mu nekk yiw àdduna ak alaxira bu ko yàlla nattoo mu daal di muñ muñ gu rafet natt bi jegeel ko yàlla mu wëlbati ko nekk xéewalu àdduna ak alaxira ca loolu kon ku nekk it war a bàyyi xel ci loolu donte ne ne lenn ci ay jullit it mënuñu leen a considérer ay yéeféer waaye léeg-léeg ñuy def jukkoy yéeféer li suñu borom wax ni lu ëpp ci jaam yi bu ñu leen xéewalee ñu daal di dummo yu beru bari na it tey ay nit ñoo xam ne ñu nga juddoo ca gott ba ca àll ba doonoon ñu tumuranke seen baay ak seen yaay doon dund ci communauté di jàppalante ñu ñëw yàlla ubbi leen ay xéewal ñu jàpp ni waruñoo dëkk ak nit ñi nga gis ñoo xam ne dañuy dem almadi tabax fa kër yoo xam ne ni dana jege ay un milliard kenn du fa ñëw ci say mbokk kenn du fa toog ci say mbokk doo amal affaire lu dul millionnaire comme yow mbokk loolu mandarga la boo xam ne yéeféer moo ko war a yeeyoo waaye jullit mooy kiy jege jullit ñi di ànd ak jullit ñi di jonjoog ñoom ca jàkka ya di di faj la nga xam ne seeni soxla la su dee yàlla subhanahu wa taala baaxe na la loolu rek mooy sant ga ngay sant yàlla ca la nga xam ne moom mooy seen seeni xéewal ci xéewal yim la defal waaye it nga bàyyi xel ne abadan bu yàlla indi ay natt mukk nga saalit bu dee jigéen a nga ne ah pexe amatul gàddu sa saat ne da ngay jaayi sa bopp yow bu dee ndawa nga ne ah pexe amatul gàddu sa paaka ne da ngay agressé ji wala da ngay doon dem ci PMI ba déedéet ngal la waay xamal ne yàlla mi nattoo ñàkk yàlla moomi innahu ala kulli shay'in qadir ñàkk gim la nattoo tey bu ko neexee mu wëlbati ko den def ko yiw def ko ak woomle comme ñee am bu leen neexoon mu teg leen ñàkk looloo tax dirit fu mu toll day yaakaar yàlla boromam subhanahu wa taala borom bi daal di bàyyi loolu daa di ne xam leen ni ku nekk ci jaam yi day yaa ngi jëfee ca sa melokaan yàlla nag moo gën a xam ka nga xam ne moo gën a jub ci aw yoon na am bu dee diggante jullit ñi ak yéeféer yi jullit yi ñoom ñi ngay jëfee jaamu seen borom yéeféer yi ña ngay jaamu seeni moroom suñu borom sant ñu ñu wax leen ne lakum diinukum waliya diin ku leen a jël diineem waaye itamit boo demee ci biir jullit yi it yéemuñu ay jëfin am na te ñoo xam ne nii dañoo diggu doomu ñu ngi noonu muxtasit ñu diggu doomu ci jaamu yàlla ga am na ci nag ñu góor góorlu ñoom ba raw daa di nekk asaabiquun ñu ngi noonu te ñu yiw ci ci ci ci jaamu yàlla ful ay naafila am na ci nag ñoo xam ne dañoo déraper ay jullit lañu naam waaye tarxis nañu moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ñetti groupe yi nekk ci lislaam fa minhum zalimun li nafsi mooy tooñkat ya jullit yi nga xam ne dañoo dérapé di naan sangaraaka njaaloo ko yu kenn xamul wa minhum muqtasid ak ñi nga xam ne dañoo digg doomu def nañ farata ya bàyyi nañ tere ya wa minhum saabiqun fil xayraat ak ñi nga xamee ne ñoom bañ defee ndigal ya bàyyi tere ya dañoo profité nag góor góorlu ca lu baax loolu nag mbokk julit képp kenn ci ñun dafa war a bàyyi xel loolu ah ci kemtaleeli kattanam jéem a bokk ca ña nga xam ne ñoo ñu raw ca it xam ne mbokk yàlla rek a xam ay jaamam jaam munte juge jaamam moromu jaamam fa rabbukum a'lam bi man huwa ahda sabila yàlla moo xam su ko defee yow da ngay rafet njoortu ci sa mbokk julit waaye doo dogu ci ni nii la mel ko tedd la ko texe la allahuma mbokk bala ñuy jël sunu aaya bi nga xamee ni nii moo yasalunaka ani ruux am na benn aaya bu ñu bàyyi woon ca suñu bind bi ñu génn ca ëpp naa bàyyi mooy aaya juróom ñaar fukk ba ak juróom ñeent aaya 79 ba fi borom bi subhanahu wa taala di waxe ne wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan lak mooy bu guddi jotee jógal taxaw di naafila loolu suñu borom tudd waxe naafilatan lak borom xam-xam yi dañ koo firee ne ndollante la ñeel la ci kaw waxtu julli juróom mboolem jullit ñi qiyaamu leyli naafila la ñeel leen ku ko def am tuyaaba ju rëy ku ko bàyyi amoo benn bakkaar amma bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom farata la ci moom moo tax borom bi ne ko naafilatan lak muy dollanti ñeel la mën na am sa borom dekkal la maqaaman mahmuda mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla farataale loolu ci moom yàlla dëppale na ko it mu daan ca def lu kenn daawul def mboolem ndaw yi sahaaba yi amul kenn ku ca masan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di di naafi la lu dul xalaat nga naa dem bàyyi ko akuk julleem ba kenn ci ñoom di xusayfa ne ne mas naa ànd ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci naafila mu taxaw jàng suratul baqara jàng suratu ali imran jàng suratu nisa ci benn rakka ñu ngi noonu salallahu alayhi wa sallam kon kooku kenn mënu ko woon a dab ndax suñu borom dane ko am na place bu kawe yowmal qiyaama mën na am ma dekkal la fa génne la fa ca mbokk place boobu ñaari mbir la benn bi taxawaay bu mu war a taxawee ñaareel ba nag pay gi ci nar a juddoo taxawaay ba muy lan suñu borom dana dajale jaami yowmal qiyaama ci bis boo xam ne nee na miq miqdaaruhu xamsuuna alfa sana dana guddi juróom ña juróom fukki junniy at lay duré buñ ko doon mingile ak ati àdduna doomu aadama yi yàlla nattoo leen ñi ngi ñaq ba ñaq bi ñii mi ngi seeni dojor ñi seeni óom yéeféri mi ngi leen ngalab ci loolee ña nga xam ne ñooy borom xel yu mag ya suñu borom xelal leen kaay leen dem ci aadama ñu dem ci aadama ne ko aadama xanaa gisoo li ñu dal aadama ñaanal yàlla mu atte ñu ñi yeeyoo àjjana dem àjjana ñi ci des dem sawara aadama ne leen hey suñu borom day mer na tey mer boo xam ne musu koo mer te dootu ko mer ca man day la yàlla bindoon tabbal aljanna ne ma lu la neex defal bu laal garab gi ma laal ko loolu moom xalaatuma ko dem leen seeti nuux ñu dem ci nuux mu indi ay layam dem leen ci xalilu rahman muy ibrahim ñu dem ci ibrahim mu indi ngant dem leen ci Moussa moom la yàlla doon waxal ñu dem ci Moussa mu indi ngant dem leen ci Isa Isa musul def bakkaar ñu dem ci Isa Isa joxe ngant ne leen waaye xam naa ki nga xam ne moo ko mën mooy dem leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ca lay jóg ñëw sujuud ci suñu boroom jalla wa ala sujud suuf arsh mu ne keroog yàlla dana ma xamal ci sama sujud boobu loo xam ni benn mbindaa fa musu ko xam ci bàkk goo xam ne dana ko bàkk yàlla gannaaw boobu ko waxee suñu borom na ko jógal nga ñaan ñu may la nga ramm ñu nangu sag ramm rasul sallallahu alayhi wasallam te lay jóge ne yàlla ummati ummati sama xeet sama xeet yàlla na yàlla fayal ñu ko loolu mokk mooy maqaman mahmuda gannaaw ba it loolu la ñuy tuddee wasila wasila benn place la ci ajjana kii taxaw maqaman mahmuda moo fay dëkkee ci firdawsil ala moom la yonent bi alayhi salaam ne bu ngeen déggee aju nodd ji nodd ba pare wax leen li muy wax gannaaw ba julli leen ci man gannaaw ba ngeen ñaan yàlla may ma wasila koo xam ne ñaanal na ma wasila day ba ma jot ca dana dagan ëllëg ma ramm ko yowmal qiyaama waxoon nañ ko ci dar si passé la gën a gàtt yow julit noddkat bi li muy wax àndal ak moom bu wax nag hayya ala sala hayya ala fala nga wax la hawla wala quwwata illa billah li ci des àndal ak moom su paree nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la gën a gàtt nga ne yàlla yàlla na nga may yonent yàlla bi al wasila loolu mooy li ci gën a gàtt amma ñaan nga ñu ñaan ci sunna ñi jàng xam nañ ko اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتى loolu mi ngi noonu kon loolu lañ doon wax ci qiyaamu layli boobu itamit suñu boroom ca la wax yonent bi def ko ngir nga am wasila place bu gën a kawe loolu it mu lay jàngal yow julit qiyaamul layli boo ko saxoo alaxira yàlla yóbbu la place bu gën a kawe ñi nga xam ne daawuñu ko taxawee ngallaawaay bu ci xeeb 15 minutes bu ci xeeb 30 minutes ba baala yàlla dogal nga mën ko caa dogal ngallaawaay julit lu mu néew néew avant fajar yeewul la yàlla yombal ci ay rakkaa nga julli ko soo ko mënoon a yóbbu ba fukki rakka ak benn loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def. kon mbokk xam naa ñu tëje rek li nga xam ne moo desoon ci bind bu mujj bi Cheikh Ousmane jàngal ñu mooy wa yasalunaka ani ruux ñi ngi leen laaj lu aju ci ruux nee leen ruux moom ci sama mbiru borom la bokk ndax li ngeen jot ci xam-xam dafa néew te mbokk suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam yéefiri makka yi dañoo def délégation dem madina fekk fa kanfóore yahudi ne leen ñun dañoo am ku ñu jaaxal muy suñu doom muhammad nee na yàlla day wax ak moom ci ay téere ci yéen it loolu ngeen di wax kanfóor yi ne leen bu ngeen demee laaj leen ko ñetti mbir su tontoo yépp ngeen xam ne naxaatekat la su tontuwul dara ngeen xam ne naxaatekat la su tontoo ñaar yi ne leen xawma benn bi ngeen xam ne yonenti yàlla la ñu ñëw laaj ko lan mooy zulqarnayni laaj ko ashabul kahf laaj ko ruux mu tontu leen ci zulqarnayni détaillé leen ko ab détaillé ci suratu kahf tontu leen ci ashabul kahf comme ni ngeen ko xamee ca fin ba nag ruux moom mu ne leen ruux sama mbiri borom la ndax li ngeen jot ci xam-xam bariwul te mbokk ba ko yàlla waxee depuis quatre siècle ba léegi yàlla may na doomu aadama développement ci wàllu science loo xam ni niñ ci rawee suñuy maam jéggi na dayoo waaye ba tey les scientifiques les médecins les physiciens les lu mën a doon ruux kenn mënu ko comprendre lu ñuy constater daal la doomu aadama am na ruux xar am na ruux mi ngi ruux maa ngi ci mi ngi dund ruux bi dem na dee na fu ñu mën a jële ruux kenn xamul ruux lu mel kenn xamul ndax suñu borom mu ni xam-xam bi may doomu aadama dafa doon lu tuuti ca it jurit loolu nga war a gëm mbokk xam-xamu borom bi ak xam-xamu jaam bi du lu ñuy comparé xanaa lu dul la xadir waxoon Moussa Moussa day ba mu ñëwee ànd ak xadir ca gaal ga gis nañu ne benn picc ñëw na samp aw sàllam ci gaal gi ci ndox mi xadir ne Muusa gis nga sama xam-xam ak xam-xamu mindaafoon yépp buñ ko doon méngalee xam-xamu yàlla mi ngi mel ne picc bi lim jël ci géej gi mooy xam-xamu mindaafoon yi géej gi mooy xam-xamu yàlla loolee kon bokk ñuy jëme ko noonu borom bi nag ne yow yonent bi maa wàcce ci yow alquran te su ma neexee it bis danaa ko jël yóbbu ko te su ma ko yóbbu woon doo am kenn ku la ci mën a dimbalit ca loolu mbokk julit xéewal la goo xam ne ba tey ñi ngi yor téere bi yàlla bi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu demee ba kenn jëfeetul alquran yàlla dana yëkkati alquran comme ni mu ko wàcce woon nit ñi xëy ku bëgg a jàng ku bëggoon a jàng dara ci alquran doo ko xam suñu ubbee téere yi fekk yàlla yëkkati na ko loolu kon ci ay ngëneelam la ko fi yàlla bàyyee ñu ngi ñaan yàlla na yàlla boole ñu ñu taxoog alquran ba baa ñuy dajeeg moom yàlla nañu yàlla boole yonente yàlla ba ca firdawsil aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waa ji nga xam ne ab julit dafa romb julit mbokk julitam da ko romb ne ko asalaamaaleykum mu ne ndax bu ko fayul dañ koy bindal bakkaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu doon wax naan àqu julit ci mbokk julitam juróom la am riwaay bu wax juróom benn bokk na ca loole mooy raddu salaam mooy mu delloo ko ab nuyoo loolu it moo tax ba heure boo xamee ni nii sa mbokk julit daf laa nuyu su boobaa bu dee yow fekku la nga nekk ci julli da nga koo war a delloo nuyoo boobee loole mooy la nga xam ne mooy la war am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñu ngi ci ay zikr zikr yooyu duñ ko dog pour nuyoo waaye xëy na ñàkk seetlu rek ndax li ngay zikr xanaa di zikrullah ki nga xam ne dafa ñëw ne la asalaamaaleykum nga ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah loolee ci zikrullah la bokk kon la nga doon war a bañ xëy ne mooy ki ñëw naan la njaay njaay jóob saar saar ila axiri waaye ki ñëw ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah nga la way dagg ba ngay dagg say zikr delloo ko loolee amul lenn loo xam ne lu jurit war a jàpp ne da koy yàqal wallahu subhanahu wa taala alam ni baal ma ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw ndax ma nes na ko ndax pour say ñaan wala ah waaw ki nga xam ne dafay jëm ci dara ndax loolu mën na ñaan rabbi adxilni mudxala sidqin te bañ a yegg ci lalee déedéet mu ngi koy waxal aaya bi yëpp rek ndax la nga xam ne nii moom mooy sultaan comme ni ma la ko waxee firiwul ne day doon nguur wala day doon pouvoir sultaan dina firi ay lay loo xam ne nii ñëpp ko soxloo sultaana nasira ndimbal ñëpp ko soxloo kon it heure boo jëmee ci tukki jëm ci examen jëm ci sëy yi jëm ci lu mën a doon ñaan yi ci ñaan yi gën a baax la bokk mooy wax mooy rab bi adxil nii bu ko defee moom xul ba mën nga ko bañ a wax boo ko waxee it da ngay gis ne dara nekku ci ndax yaa ngi musul ci yàlla pare di wax qul a'udhu bi rabbil falaq kon bu la waxee rek qul rabbi adxil nii mudxala sidqin te jublu ci ñaan it loolee da ngay gis ne ñaan gu baax la ci lépp loo xam ne yaa ngi ca jëm wala lépp loo xam ne yaa ngi ca bëgg a génn mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah waaw xam naa mbokk yi ñu ngi fàttali mille francs yooyu ngeen doon barke loo ci fin du mois yépp ñaareel ba tamit mbokk xam ngeen yàlla nattoon nañu tey it boo xam ne it bu yàlla da ko indi ngir bégal xol yi waaye dëkk bu mel ne Sénégal lu ci bari it fi moom dafay indi ay ñagg-ñagg ndax xam ngeen ne tey it yàlla nattoon nañu ñaari julli ñaari julli yoo xam ne nii am na ba tey li ñuy tuddee mouvement ahlu sunna yi sax ñaari julli yooyu am na ci su ko defee ngeen xam ne imaam yi dañuy am ay jafe-jafe yàlla mës na dogal lu mel ni daloon ñi ci at yi passé Sénégal li ëpp ci ñoom di julli safaanoo ak ak Makka di ñuy julli safaanoo ak Makka am lenn ci ay mouvement ahlu sunna yoo xam ne sax ñoom it dañoo ànd ak waa réew mi ñu ne ñi gisoon jamono boobu di jéem a jëfandikoo xadis bi yonent bi alayhi salaam di wax naan nañu ànd ak mbooloo mi ci bisu it mooy bisu mbooloo mi bañ defee suñu ictihaad ba ànd ak mbooloo Sénégal bu julli am na ca benn góor goo xam ne keroog la bàyyi jàkka ji ba baa muy faatu tegute fi tànkam te mooy imam bi day font kon loolu ngeen xam ne bu tolloo ci ni imaam yi dañuy am jafe-jafe bu mag wallahi mi ngi noonu ku mel ne Cheikh Ousmane hafizahullah gallaajo ñu ngi ciy waxtaan mu nekk tiis bu nekk ci ñun waaye liñ ciy wax rek mbokk julit ala kulli xaal ñun fii ci jàkka ji daañ fi taxawal julli dimanche bi di ñëw ca la nga xam ni moom la ñu jàpp ne ñun moom la ñu war a def jàpp gën ko jàppit dañuy wax li imam Shafi'i doon wax lii mooy sama position jàpp naa ne muy dëgg ka safaanoog man jàpp naa ne daa juum waaye mu nam mu nekk ci dëgg waaye laa kulli xaal lii mooy sama position loolu la ko ñoom Shaafi doon waxee donc ñun it suñu position bi ñu yàlla def ñu gëm ko mooy arafat ñu ngi koy taxaw samedi bii di ñëw ñu ngi ñaax nit ñëpp ñu woor ko bu ñu jógee arafat bis ba ca tegu mooy yowmul xajjil akbar te it li tax suñu borom daal di tëral adduna yëpp di rey tabaski parce que waa makka la ñuy topp ñoom ñooy rey seen hëdiyo ci bisu fukkeel bi loolu ñun loolu lañ gëm ba looloo tax dañuy taxawal julli fii dimanche incha allah ak ña nga xam ne jàpp nañu dañ ko war a taxawal donte ne it ñi ngi ñaan yàlla lañ ko doon ñaan naka jëkk ña nga xam ne dañoo safaanoog ñun gis leneen it ngalawaay ñi ngi ñaan yàlla boole ñu nangul allahuma koo xam ne it dafa gis ne dimanche lañu war a julli mu julli si ak ñun dimanche wala julli feneen dimanche fi lillahi alhamdu amma bu derey xar bi moom islam yaatal na ko ñeenti fan yépp bi sorey la mi ngi noonu boo reyee dimanche baax na lundi baax na mardi baax na mercredi baax na yooyu yépp ay bi sorey la mi ngi noonu kon ñu bàyyi ci xel bu baax bu dee yàlla yóbbu nañ ci it incha allah neuf heures lañ bëgg a julli ndax tabaski bi dafay doon loo xam ne nit ñi dañuy am yeneen i ittee di ñaan yàlla ñu yàlla nangul nangul bépp jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain